aje jërë ngeen jëf mbokk yi seenaan LVD TV la voix de Jam Production mbokk yi nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy e nekk fi nga xam ne moom mooy dàngu e, bu ñu nee dàngu nag wala bu ñu nee Tëngéej rek xel xel dem fen fu dul ndax moom mooy caak waaye mbokk yi nag e, lu ñu fa del gis ngeen ndeysaan ay jigéen yoo xam ne ni e, dañoo bëgg làmbu Tëngéej dekki ay jigéen yoo xam ne ni dañoo bëgg làmbu Sénégal jëm ci kanam muy Rio Event waaye nag mbokk dañoo taxawal combat bu rëy combat boo xam ne nii dafa taxaw coow li bari loolu ndax ñaari xale yu koy bëri yëpp ay ndaanaan lañ muy Alpha ak ki nga xam moom mooy Tébélès e, yaayta e, ci li may njëkk ñëw mooy combat bi e, ban xalaat ngir am pour taxawal combat bu rëy boobu ginnaaw ma la yow. Badou maa ngi lay fay di rafetlu question bi nga posé combat bi euh, li tax ñu xalaat ka ba xalaat tamit dem CNG. uti suñu licence mooy dañu xool làmb tëngéej ne tëngéej làmb mu ngi fiy dee tubaarkàlla doomi tëngéej ñu ngi ci làmb ji du góorgóorlu bu renouveler licence jotee ñu dem mais at mu jot boo ne téeméer la cay bëri fukk lay doon hmm. ñu xool ñun yaay en tant que tamit grande sœur ñu xam ne suñu làmb tëngéej bu nu si jogul hmm. làmb tëngéej dina dee hmm. li mag ñi waxoon rek ñaar tubay tamit euh, ñaar loxo mooy takk tubay waaye ñaari loxo tamit mooy takk sër bi ñu demee ñu toog waxtaan moo ay dem au Ndo Fashion ñu toog waxtaan si ak suñuy càmmeñ nga xam ne ñu suñu du duñu jàppale ñu ne kon jot na ñu taxawal parce que fii ku fi ñemee rek dañ la dee. Mhm. ba nu amee ñoo xam ne nii nag xam nañ làmb miin làmb war ñu cee gunge ñu ne tey nag mhm. dem nañ CNG. Mhm. dagg sunu carte promotrice pour ñëw jàppale jeune Tëngéej. ndeysaan jërëjëf yaay booy loolu am na solo. Eh, boo gisee li tax ma ma tàmbalee question boobu. ndax combat bi ngeen taxawal dafa rëy. Eh, combat ñaari xale. ñaari jàmbaar Alpha 2 gis ngeen bu jógee. day ànd ak waa Tëngéej yëpp ñëw. waaye ki nga xam moom mooy Tibles bu jógee Kër Massar Jaxaay ñëpp a koy topp ba pare combat revanche la combat la bu am coow combat la boo xam ne gis na xale bi mm-hmm. moom mooy Kër Massar ak Jaxaay daan fa ay xale yu bari mm-hmm. et moo tax Tibles jël la waaye bañ ne combat bi taxawal ñu ne waa Rio Events ñoo ko taxawal mm-hmm. et ñu bari question bi mooy ñan ñooy waa Rio Events ay jigéen ñu xam ne nii li ñu def ci tëngëj kenn su ko gis ci wàllu làmb muy ay jigéen ñu jël seen xaalis tëgg combat arène loolu nag lu rëy loolu nag moo tax si vidéo bi maa ngi koy wax ne képp koo xam doomu tëngéej nga da nga war a ñëw nga jàpp ci yaa itam man question bi may njëkk a laaj mooy ambition bi ak li ñu dugal ci làmb li ñu dugal ci làmb léegi Badou defe naa wax na ko parce que dafa am phénomène bu fa xew mooy boo xoolee suñu demee suñu mbër yi dem ba gaal gu taxaw mbër yi ñoo cay jiitu wala mbër yi ñoo cay ëpp mooy découragé ñëw na yaakaar bu tas xew na ñuy entraîner matin au soir ku nekk xam ne ne mbër mbiram dafa met soo xëyee yaa nga saal su ngoonee yaa nga sa écrit yaa ngay daw yaa ngay jàpp di defar tey bu ñu demee combat amul te mbër nag bëri moo ko jëkk bëri mooy tax mu am sax lu mu jënd saakub ceeb su ñu demee ba làmb amatul mhm. moo war a mbëri dugg ci gaal yi mhm. ñun ñu am lu ñu naqari mhm. moo waral ñu taxaw en tant que jigéen tey dagg suñu licence seetu ku mel ni Alpha 2 ku mel ni Tubles wax nga ko léegi de muy xale yu jàmbaar yi combat bu rëy tubaarkàll ku ko dégg nee nga ñu lii kan moo ka ko tànnal mhm. ma ne la ku am maam ñaaw ñàkkoo dara dëgg la dëgg la ñu ne lii ku ko jàmbaar dëgg ku xam làmba moo ko man mhm. ma ne leen ay jigéen la di ñu ko di commencé mhm. moo tax suñuy càmmañ taxaw indi ñu loo xam ne am na riir ma ne tubaarkàll badu ba nga ko defee boobale nit ku ne oo nañu nañu li ngeen def du lu ndaw ma ne leen si ñëpp a jàpp ne ñëpp a ñëw taxaw ay jigéen lañu nag ay jigéen yu min làmba xam làmba bëgg làmba tamit ba moo war a tey yàlla ñu am dimbalam yàlla ba taxaw tey taxawal combat. donc nag wax nga ko léegi sa biir wax. Mhm. moo ti ñu ñu war a jàpp tamit dañuy ñëw taxaw na. Mhm. comme jigéen ñi taxaw nañu. Mhm. fas ne jàppale sunuy doom. fas ne jàppale sunuy càmmañ. dëkk mi ne dafa am ñu ñu ko bokkoon. ñu ñu ko bokkoon nag dañ leen di woo. pour ñëw tamit jàppale si li nga xam ne ni moo war a xew te tur bi pourquoi pas Rio Events. Rio Events bi moo di ne lépp tëngéej la ndax dañ olof na ne bay si say oom boo jógee gàddu sa ndaa dem. am na ku samp am toog moo mm-hmm. tax ñu ne Rio Events production mm-hmm. te nag yemuñu rek si làmb nag mm-hmm. ne ñëpp xaar xam ne événement bu rëy am nañu yéene tëgg ko si tëngéej gi tëngeej daal dañ ko bëgg a delloo la woon fa woon tëngéej ay ndaanaan la ñu mas a doon lépp lu waay di ut boo duggee tëngéej doo ko am lu waaye di ut boo bëggee mu ne da ngay ñëw tëngéej loolu nar a rëcc sunuy loxo moo tax yaay yi taxaw sœurs yi taxaw ne la woon daal dañ koy dellu suñoo sampark bi tëngéej mm-hmm. eh, kon su ma su ma su ma déggee mooy Rio Events mm-hmm. eh, autour rek taxu leen jóg autour tax noo jóg parce que ñu tëngéej xam nañu àddina ñu xam nañu département Rufisque xam nañu. lii nga xam ne moo tax Rio Events jog daal. Badou sama biir wax waxoon naa la ko. Mm-hmm. moo di ne dañu gis sunuy mbër taxaw wëre bëri du ñu bëri. Mhm. ku nekk xamoon na ne Pala Mbengue moo fi nekkoon en tant que promoteur ba mu fa nekkee ne lambi tëngeej jégoon nag mhm. bi mu fi jógee lambi tëngeej jég na ko mhm. moo tax tamit ñu am gis-gis boobu am xalaat boobu daal ne na Rio Events na ñëwaat jàppale waat suñuy mbër gunge suñuy jeune ba yàlla dafa ñu liggéey am ngeen date muy le 17 février lu ñu mën a xaar ci côté ah, ambition tubaarkàlla eh, ci côté ambiance ak lu rëy ndax tubaarkàlla le 17 ku ñëw stade bi dina xam ne doomi tëngeej ji woote nañu Mhm. ku ñëw stade bi tubaarkàlla yal na yàlla laf cat mhm. dina xam ne alal dellu na ci loxoy boroom mhm. tëngéej gii incha allahu rabbi ku ñëw di nga gis baaxu tëngéej di nga gis ndaw rabbin dama ne gàddu gaal indiwaat ah. ko teg di ko joosi plus day amaat ah. Rio Évents moo koy indiwaat de est-ce gis ndaw rabbin lépp lu làmb gëjoon a am Rio Évents da koy dellu sa waat dama ne li di set que fàtte que bañ faa ñëw erreur la dëgg noo ngi koy waaj noo ngi koy dox ñoo ngi koy wax Mm. lépp lu nu ñàkkoon ci culture mm. incha allahu rabbi fas kee nañ ko indiwaat mm. bu soobee yàlla sa stade Ngalandou Diouf ba muy xewee le 17 février mm-hmm. yàlla na ci yàlla yu bokk jàmm mais ci côté autorité yi mm-hmm. ak bonne volonté yi ak mm-hmm. sponsors yi est a ngi euh, yi man direct rek laa leen di ci Badou fii direct rek mooy li ñu bëgg en commençant maire ville muy Omar Cissé moom la ñuy jëkkër mooy le premier magistrat de la ville de Rufisque kon ñu ngi ko si oo di woo tamit suñu ministre Ismaïla Madior Fall di oo Seydou Diouf ku nekk xam ne ne mooy président ANBOL moom it ñu ngi koy woo di woo Alioune Mar kenn mënu simba dara njëre yaay ko damaa doo ko ci boole ñu ngi koy oo suñu bés bi muy ndaanaan nag mën a jàppale jigéen kon moom ñu ngi koy oo suñu bés di woo nag sponsor yi nag tëngéej ji rek sponsor yi nekk tëngéej bu ñu ko ngee rek ñu yegg mhm. waa ku mel ni sukkasim doy na sponsor kese doy na Sococim xajul si bés mm-hmm. mais maire Nord maa ngi koy woo Assane Kassé mm-hmm. sunu boobu tamit ñoo ngi koy oo di oo tamit mm-hmm. monsieur le maire Ilimane Sembène ak bépp autorité boo xam ne yaa ngi Tëngéej Souleymane député tamit duñu ko bàyyi mais nag am nañu ay astécie yooyu yëpp ñu ngi leen di woo Tëngéej daal ko bokkante ñoom ñu nekk si beneen côté di ko doxal ñun tamit la ñuy dox ak li ñuy dox benn la ndax dañ ne politique pour pour énerver la waaye ñun tamit dañu dog tamit pour jàppale suñuy jeunes kon ñoom mënoon la xasaw ay goj mhm. mënuñoo dem bàyyi ñu ne mënuñoo dem bàyyi leen mhm. te dañuy door a door te kuy door tamit ña nga am ñoo lay jàppale kon ñu ngi woo bépp autorité mhm. di oo na bépp sponsor nag sponsor bi nekk ci làmb ji noo ngi koy woo mais na en commençant ne sponsor yi xam ne ñoo nekk tëggeen nun jigéen ñi toog jàkkaarloo yi di seen i jigéen fit moo nu jàpp a bëgg gunge suñuy rakk a bëgg a dekkal cosaan ku nu fa fekk jàppale ñu jël fitanu jàppade noo ngi ni nii la ñuy doxee am fit loolu nag badu am fit moo nu jàpp mais ñoo ngi oo ñëpp mm. bépp sponsor ñoo ngi mm. koy woon mu ñëw dugal si loxoom mm. Sirio Events production mm-hmm. nga xam ne ni tubaarkàll fii mm-hmm. la nu commencé waaye fa nu jëm xam nañ ko mm-hmm. keroog ba ñu demee CNG tubaarkàll ñu ngi gërëm président CNG ba ñu daggee sunu sunu licence ba pare dañu recevoir si saas bi nañu yéen fi ay jigéen yu nekk si lutte euh, avec frappe kon dinañ fexe ba nuyu génn ci làmba ji dinañ lañ jàppale kon moom it maa ngi koy gërëm au passage keroog CNG ku ñu fa fekk promoteur ménagère ñëpp a taxaw di ñu encouragé donc ñoom xam nañ ñun ñu jëm fan la ñu ngi ñu siy gunge te départ aguñu kon ñoom it ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wane daal ba ñu fa demee nag ñoo waxoon waa CNG ñaari journée la ñu bëgg mhm. première journée bi fii la ñu koy defee Tëngéej comme ni ma woon bay si say oom mhm. fii la ñu koy commencé mhm. man nañu ñëpp xaar nag suñu jógee la di seen nag ñoo nga jëm arène national bu noo accès arène nationale dinañ xam ne jigéen ñi takk seeni sër accès dañu baddu kon daal <laughs> yëfi daal nii la demee lii moo fi xew Rio Events daal la ngi noonu ay jigéen a ko composé kon kon yaa ayta bu affaire bi réussir deuxième journée mën nañ xaar ku mel ni doomu daangu ak keneen waaw bu ñu bu ñu yàlla dimbalee ba ñu réussir si bésu alpha bi ak tubless mhm. dañuy demaat waaye du tax tamit ñu fàtte ñi nga xam nañu ñoo ubbi bunt bi nag mhm. waaye nag bu keroog gee am naa yaakaar dana am ay doomu dàngu mhm. ay doomu tëngee ñu ngi fi ku mel ne ama neex ñooñu ñëpp defe naa ni du ñu tee parce que ñu seeni mag lañu Mm-hmm. ñooñu mënuñu noo te te lu nu bëgg tamit dinañ si jàpp incha allah mm-hmm. parce que ay doomi tëngéej lañu. Mm-hmm. kon ñoom am na fu ñu yegg seen tur am na fu mu yegg nu départ tamit defe naa ne ñoom dinañu mën a def te bu ñu demee day gën a neex incha allah rabbi jërëjëf yaa itam man man dama laa bëgg baax ci yow léegi danga may joxal alfa rek waaye message bi mu lancé am na solo eh, képp koo xam doomu tëngéej nga na nga ci jàpp képp koo xam ne bonne volonté nga dëkk tëngéej ñëw leen ngeen jàppale ñii ndax eh, ñii wax naa ko léegi ñii li ñu yor bu leen neexoon dañ koy def feneen kon na waa Tëngéej yëpp ñëw jàppale leen le 17 février bés la bu rëy. ay eh, jërëjëf Nambour maa ngi lay nuyu di la kontaane bu baax a baax baax eh, gis nañ liggéey bi eh, gis nañ taxawaay bi ni ko suñu yaay ay ta waxee léegi lu ñu mën a xaar le 17 février. incha allah waaw salaamaaleykum d' abord. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di la remercier si oyof bi nga def ñëw fii di nuyu mbër bi. di nuyu sama staff toog ñëpp. waaw bés bi nag. ñu ngi ci tàmbali ah bisimilah lañ ko bëgg a commencé. Mm-hmm. aussi waa Tëngéej gépp mm-hmm. parce que promotrice defe naa benn lañ fi amoon mooy Ndeye Ndiaye Tyson. Mm-hmm. te yàgg na gisatuñ ko fi kon ñu nag làmb daa nekkoon suñu dare di ci dox. ñu am ay rakk yoo xam ne ay mbër lañ. ñu dëkk dàngu te li ñu nekk yëpp ay mbër lañ yàgg nekkal ñuy gis ni ñuy dund. ñu gis bu ñu bëggee combat ni ñuy sonnee ñu ne pourquoi pas ñun ñu ngi tëgg chaque jour ay mbapat. Mm-hmm. nañ ko jënd ji dagg ji licence mm-hmm. ñu def ko lutte avec frappe mm-hmm. bu boobaa ñëpp gis ci seen bopp ndax bay ci say oom sama mag wax na ko léegi moo tax ñu dugg ci mbir mi pour def loolu noonu beneen bi nag mooy ñu ngi ci oo autorité Tëngéej yëpp particulièrement léegi léegi léegi balaa ngay ñëw ci loolu ndax affaire yomb na ah dara yombul ci àdduna mais xam nga loo miin ax ah, bëgg ko pour nga dugg ci day yomba ñu am ci aussi suñuy góor ñu nekk suñu ginnaaw defe naa bu ñu amee jamaa bu ñu tunee gis maam Ndiaye maam ñaaw si. kon kon kon ma déggee balaa avant arène bi yéen da ngeen mbapat avant arène bi da ngeen tëgg da ah, ñu ngi tëgg ay làmb mbapat. Ama Baldé boo ko déggee bi mu duggee tëngee ñu ñoo ko organisé woon ay temps. mu ñu fekk suñu fii boobu xaatul woon sax dina egg si fii tey. Mhm. kon nag am nañ yaakaar ne li ñu dugg nii xam nañ ko lu ñu miin la. kon nag da ngeen war a lancer appel Ama Baldé bu ñëw jàpp ci. dëgg la mhm. waaw Ama kon ñu ngi lay lancer appel. si mhm. bés bii Ndo Fashion Rio Events ak Aïta Fashion ñoo la owaat si bés bi pour nga ñëwaat bi ñu la tëggale woon bi ñu tëggee woon invité la nga ñëw sagal ñu bii nag ñoo ngi lay woo nga ñëw jàpp si ñëw toog assister bés bi invité d'honneur bi yow lañ ko bëgg a jox te bëgg nañ nga ñëw assister loolu noonu léegi léegi ci côté stade bi waaw ndax wul ah xaw na compliqué parce que def nañ suñuy enquête ñu ne ñun bala ñoo jot autorisation stade bi semaine combat bi day daal di ñëw te régulariser combat yi ah, au côté de CNG day xaw a difficile suñun ñuy ñaan nag monsieur le maire Omar Cissé bu mënee teel ñu jox suñu autorisation ñu mën ko présenté au niveau de CNG mu jàppale ay jigéenam pour loolu nu mën a oyof si ñun parce que defe naa ne tëngéej lañ dëkk te tëngéej kese mooy ñor te lu mu metti metti lépp tëngéej lay moo si amaat bénéfice ñi si yow aussi sponsor yi di oo doomu tëngéej yëpp bàyyi ñu mbëri ndaw yi képp ku mbër bu nekk en activité rek demal nga entraîné takkaat sa ngemba utaat doole te xam ne Rio Events pour ay élément tëngéej kase kase lañ bëgg ñu jëm sa kanam kon fi ñuy dégg mbër yëpp si Sénégal mhm. ñu dégg fa tëngéej dégg fa lébu gi fépp bëgg nañ fa dégg suñu champion yi ñu am tëngéej te mhm. gëm nañ ko te ñoom bu ñu ko gëmee rek bu ñu booloo dinañ am lu ñu bëgg mhm. incha maa ngi dégg ñu ne Rio Events dix grands combats la taxawal ndax xale yi ëpp coow ci bi dañ ciy bëri ci bés bi waaw dëgg la waaw mbër moo dégg rek mu am coow fii si tëngéej rek si département bi tëggal lañ la bés jox la mbër mu bëri doole tamit nga ànd ak moom ñu xool suñuy mbër wan leen ne ñun am nañ ay mbër yu am doole mais dañu amuloon woon promoteur yu leen génn wan leen mbër yi ñu am. Mm-hmm. moo tax bu boobaa mbër mu am coow tëngëj rek bu boobaa incha allah rabi journée bi ngay bokk. Mm-hmm. kon daal su ma déggee mooy seen ambition mooy lambu tëngëj dem ci kanam. waaw loolu seen ambition waaw loolu ñu bëgg ndax dañu am ay champion ñu gëm leen xam leen. Mm-hmm. ñu bëgg nag ñu wane leen si télé bi wane leen si dëkk bi Sénégal yëpp xam ne tëngëj am na ay champion loolu lañ bëgg. jërëjëf kontaan naa bu baax. merci beaucoup am na solo aja jërëjëf mbokk yi seenaan LVD TV comme niñ niñ ko waxee léegi bi ñuy tàmbali rek eh, mooy tungu nag du teew ñu ne taal eh, kenn du laam-laam yi ndax combat Alpha taxaw na wala taxawul eh, ndax ki nga xam moom mooy ménager Alpha mu ngi nii muy maam ñaaw siis ménager xale noonu laa ko waxee moom it jàmbaar la sagu tëngéet la moom ménager la boo xam dafay jàppale xale yi ndax xale yi mu engagé daanaka du xaalis ndax xale yi fay kow ñu dara contraire dafa jël xaasam di ko di ko delawaat ci xale yi maam ñaaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di ko jox wàccuwaay bu baax a baax a baax maam ñaaw combat Alpha 2 taxaw na ginnaaw mu la nuyoo. waaw Badou maa ngi lay fay. Mhm. di la sant di la gërëm. Mhm. comme ni nga ko waxee rek combat Alpha 2 na taxaw na. Mhm. aussi ci occasion bi di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko taxawal. di waa Rio Events production day jigéen yu jàmbaare. dëkk Tëngéej plus particulièrement Dàggu Noor. mu mel ni que ne rek comme ni ko olof Dia di waxee. ki wéet ak ki bëgg ki ko wéetal tëjal buntu bi du leen boole donc mu war a dox ci digganteem ak ki nga xamante ne mooy Tublees mhm. bu Kër Massar di combat bu am solo mhm. combat bu neex combat bu jaadu mhm. yow yaa ngi dugal Kër Massar chaque instant yaa ngi dugalaat Kër Massar Mame Niang waaw xam nga làmb moom dafa wuyoo dangay làmba di làmb di làmb ba daj te moom dafa dëkk Tëngéej bu weesoo mbëru Tëngéej ñoom la fi bàyyi fépp foo xamante ne mbër nekk na fa làmb boole laay moom day daal di bëri yow. Mhm. dugg na Kër Massar duggati fa duggati fa te su paree war fa duggaat aussi tamit dina fa duggaat waree dem feneen aussi tamit dina fa demaat. Mhm. comme nit ci blesse aussi tamit duggee Tëngéej. Euh, mhm. daan ki nga xamante ne mooy doomu Minam. donc lii day daal di nekk revanche par procuration. mu nekk ñaari ndaw yoo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla bi combat bi taxawee ñëpp dañ na lii lan la. waaye aussi tamit combat euh, du ñu mën a bett. parce que ñi ko tëgg aussi tamit suma ay jigéen lañ. Mm-hmm. ma xaw a sori dénk leen Matane Ndiaye. Mm-hmm. donc Matane nekk suma mag ànd ci ak ndooy bi ñu si toogee ñu waxtaan si génn kombaa tubeless ak alpha 2 mm-hmm. donc loolu du nekk gulet si ñun mu nekk combat boo xamante ne combat bu neex lay doon tubeless mu jóge si victoire bu am solo def kaawo alpha 2 jóge si victoire bu am solo def kaawo donc ñoom ñaar moom bu at arbitre génnee seen diggante euh, di nga gis lu neex waaye ndax ndax ñi fa alpha ak tubeless benn la ndax Tébéléss day day day ndaanaan et day mbër boo xam day xeex te day bëri jàmbaar la et combat bi dafa taxaw mu ñu bëri sax ne ma pourquoi pas Alfred jël Tébéléss. waa effectivement parce que lamb moom euh, mbër yi bokkuñu. Hmm. wax dëgg fa yàlla ñi Alpha doon bëreel ak du ñu benn. Hmm. waaye Tébéléss aussi tamit ñu mu doon bëreel ak Alpha duñu benn. combat hmm. bu nekk ak ni ñu koy waajee. bu dee ci côté technique wala ci côté tactique wala ci côté physique euh, ki nga xamante ne mooy Alpha de amuñu luñ koy tiit amuñu luñ koy ragal mm-hmm. dañ koy ñaanal yàlla jàmm ñaanal ko tubless et xam nañ ne bu jour baa aussi tamit dina ñëw te dina wane li nga xamante ne moom la waaj mm-hmm. te aussi tamit dafa nekk ci dynamique de victoire mm-hmm. am fu mu jóge am fu mu jëm donc man en tant que manager am dama ko si ñaanal yàlla ndam lu kawe donc lu mu ko waaj nag doyul parce que combat am ak Tubilès ku ko yombalal yaa ko xañ waa Kër Massar nañ de waaye effectivement loolu la ñuy ñaan yàlla. ndax Alpha dafa dugg duggaat fa duggaat fa ni dafay duggaat ñoom dañoo bañ de. waa jeexaguñ. wax dëgg fa yàlla moom bu fekkee dañuy wax dëgg rek te yàlla tax jeexaguñ. te du Alpha 2 rek. mooy dugg si am na am na am na pexe yu daan tibles. am na. am na pexe yu daan tibles. waaw dëgg fa yàlla bëri na ay argument yu mën a daan tibles moom. Hmm. argument yi tegu si làmb kese kese kese kese. Hmm. yu mën na daane tibles tibles yi boppam xam na loolu. Hmm. nañ loolu. Tibles am na sens ci Alpha 2. waa xam nga combat moom reenu ñaambi la. Mhm. fu ko neex lay daggee. Mhm. dañ koy ñaanal yàlla ndam rek. Mhm. mais ñoom ñaar bu bés ba jotee baat bi wàccee loxoom ku daan sa moroom war nga ko mën a daan. ñoom ñaar ñëpp seen dernier combat yi kaaw la jeexee. waa kaaw la jeexee parce que ay mbër yu am fit lañ ay mbër yu am jom lañ ay mbër la yoo xamante ne bu ñu jógee dañuy bàyyi xel seen ginnaaw. ay mbër la yoo xamante ne boo leen dóoree dañuy fayu te duñu a xaar la di lu mën a xaar. waaw làmb laa ju jaadu. mën na yàgg. ah mën na yàgg comme mën na yeex. Mhm. mais xam naa ne lu mu laaj rek parce que Alpha 2 aussi ay champion la nekkal. noo comme yéen a koy dalal. ah yéen a koy dalal de. waaw ñun ñoo koy dalal mais xam nga Alpha 2 dafa nekk ak ay champion. Mhm. di liggéey ak euh, écurie bu mag. gën ko xam ci lébu gi. Mhm. ay ñoom Amane nekk fa ay ñoom Gamou Gueye nekk fa. vraiment ay ñoom Papa Ndiaye nekk fa. et ñoom entreneur boo xamante ne yàgg na si làmb. di mhm. Babou Kale. Mhm. donc li war ci bés bi moom xam na ko. Mhm. te incha allah si kàttanu yàlla dina ko def. côté côté côté mobilisation. waaw côté mobilisation moom du doy. Eh, gis nañ ne Tëngéej aussi tamit xaw na fi tàggatéem bi. Eh, donc dañuy lancé appel rek comme day bëri ci dëkkam. foog waa Tëngéej ñu sagal ko. mais au la sagal ko moom ñu sagal ñi nga xamante ne nii tey ñoom ñoo ko tëgg. te Tëngéej bëri ay mbër. ñu am yaakaar ci moom tàmbalee ci moom du ma ne ñu bàyyi fi ñeneen ñi. mais moom tàmbalee ci moom. yàlla bu yàlla tas yaakaar. Mhm. donc di wax waa Tëngéej yëpp ñu génn. Mhm. ñu ñëw jàppale ki nga xamante ne mooy Alpha 2. Mhm. waa Kër Masaa yëpp génn ñëw jàppale ki nga xamante ne mooy Tubles. bu defee làmb ji nekk làmb ju alaa dawme vraiment ñi nga xamante ne tey dinañ fa ñëw yàlla dogale ñoom ay sponsor parce que fii ñu tàmbalee gis nañ ne métti na. combat bi amagul parrain. déggoo ci parrain amaguñu sponsor. loolu noonu yëpp mu nekk yoo xamante ne après lañ ko war a dox. di ñaan yàlla buñ ko doxee ba mu sotti. ñoo hmm. ñëpp bu ñëwee ñu fekk fa hmm. loo xamante ne dal na seen xel. te hmm. dina leen neex. ba boo leen oowaatee ñu mën a ñëwaat. ci côté côté violence en tant que ménagère loolu mën a dalalee xelu ñi nga xam ñoom ñoo jógee di leen fekk si Tëngéej. waaw loolu koy commencé ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk parce que nit aussi tamit bu ñëwee dalal la. amaana nu muy toogee yow yaa koy wan. ñi nga xamante ne ñoo dëkk Tëngéej yàlla dogal ñu am chance di bëri si bés bi nañu ànd ak yar. parce que lu lay yar mayul du la ko xañ ci lu baax bu ko defee ñi leen fekk sa aussi bu ñëwee gis seen toogaay rafet jekk dinañ hmm. toog toogaay bu rafet parce que làmb ak lu ñu mënti wax esport kese la hmm. te bu si violence duggee rek lu muy yàq di ëpp lu muy defar te làmb aussi boo xoolee man damay wax ne facteur de hmm. développement facteur d'insertion sociale ay man su ma demee ba toog am ay mbër yu jël gaal gi dem Espagne wëlbatu ko di ma woo depuis Espagne moo wax ne dañ bëgg ñëwaat ndax foofu dafa metti donc nga xam ne euh, làmb lu jotatee la maintenant nag li koy yàq bokk na si nu mu ko yàqee parce que ay du yem si bopp borom te aussi stade bi suñu ay naw la ñoo fi nekk di def sport mhm. nawetaan dafay am championnat dafay am te gisaguñu fi yenn jéyee yi mhm. stade bi tamit mooy benn stade bi nga xamante ne Tëngéej moom la ñu am mhm. bu yàqoo lu muy yàq dafa bëri TFC dafiy recevoir AGEL dafiy recevoir béréb bi ñu am fa lañ koy def ak yeneen activité yoo xamante ne dañ ko fay def donc li ñuy ñaan di 17 képp koo xamante ne ñëw nga fa te làmb indi la fa wax dëgg fa yàlla rang yi jub lépp nag lu jëm ci ay matuwaay pour que loolu am. dinañ si taaw parce que ñii aussi tamit dañ dagg seen licence au niveau du CNG. bu ñu tëgg seen làmb dañuy dem régulariser ko. boo koy régulariser di nga am li nga xamante ne mooy këyit bi lay wan ne tey am na ay force de l'ordre. bu jaree aussi ñu renforcer sécurité bu surtout dinañ ko renforcer. donc mais yaakaar naa ni nit ñi bu ñëwee ku nekk yem fi nga war a yem. sport sax war na mën a am làmb war na mën a am te policier du ñëw. gis nañ ko France bi Baboy di bëri ak yi nga xamante ne tey mooy Bombardier mhm. Balla Diop nee na li ma jaaxal dama dem gisuma fa policier parce que ku si nekk xam nga fi nga war a yem mhm. donc ku nekk boo yemee fi nga war a yem rek yaakaar naa ne kenn du sonal kenn parce que aussi tamit bu ñu ñëwee ñette yi rek moo mën a am de mhm. mbër mu daanuwul di nga daan wala nga combat nul loolu mënul ñàkk si bu combat amee jërëjëf maam ñaaw kontaan naa ci yow Babacar nag ñu ki nga xam moom mooy Alpha 2 nag moo war a bëree le 17 février bi nga xam ne nii waa Rio Events ñoo ko tëgg muy ay jigéen yoo xam ne nii waxee nañ ko léegi rek mooy ne leen tënk yëpp ne leen àdduna yëpp jàppale Alpha maa ngi lay nuyu. Badou ñu ngi lay siyaar di wax onze billah bismillah naan yàllaaw. Mm-hmm. gannaaw ba ñu jëlee si yonent bi di sant suñu ñaari waajur. Mm-hmm. di sant ñu fi teew ñëpp di sant ñu ma àndal Papa Ndiaye. Paa Abla. waaw di la bége. temps da ngaa xew de. ana xew bi. non temps yi temps yi mu meex bës quoi. Hmm. waaye nag da dem nag ci bés bu rëy eh, da dem bés bu am solo sa eh, yombul sax daanaka bëri daanaka sept combat wala huit komba bëri gën a combat eh, sa diggante ak xale yi balaa may ñëw ci combat bi sa diggante ak xale yi bu boo jógee waa Tëngéej toppul lan la. waaw sama diggante ak xale yi du dara. loolu hmm. maanaam. waaw nekk si lu am am si loo xamante boo si nekkee da koy gëm rek. Hmm. xale yi moom loo gëm ñu fekk sa la si. mooy fulla ak fayda. boo ko amee si li ngay def rek xam nga. gars yi fekkale si quoi. Mhm. mooy loolu yaafus rek moo bon. Mhm. Mhm. yow loo bëgg Kër Massar. Kër Massar bëgguma fa dara. boo yaa ngi bëgg yëpp waa Kër Massar de. non non moo bu jeexee jeex na. bii sax mi loo mën a waaj doyul. waa Kër Massar waa Kër Massar ñoo ma ci la kan yeneen combat yi rek. Tibilès yóbbante ma ci la rek. ana mbër bi ko fi daan lu métti waa Kër Massar moom rek. waaw gis nañ fi yeneen mbër la lan doon wax. Mhm. waaw fa lañ jaar. Mhm. kan nice. léegi ñu mën a xaar le 17. li ñu war a xaar wa 17 waaw di sant waa Tëngéej bu baax a baax a mhm. baax a baax di leen wax combat bi ñoom seen combat la. waaw na ñu dalal ko ñu feesal stade bi xam nga. suñu borom suturaal ñu may ñu ndam comme dab. mu ngi lay si daan loo koy wax. waaw li ma koy wax bariwul maanaam mu waaj rek mu ñëw ñu neexal ka. yàlla suturaal ñu ma am ndam si kawam. may dégg léegi nga naan Tibou Less mag la quoi paa la. paa non amul paa làmb ji amul paa de. yaa ko wax de. amul paa de entraîné la rek amul paa de waaw. ku gën a féete xale. waaw yooyu yëpp dañ ci àgg na liggéey ma liggéey rek. bu bis baa lay feeñ déggoo yooyu yëpp duñ ci àgg ku dàq bëre. <laughs> yow booy xanaa nga ñemewul Tibou Less yow. doo wax ak moom. ah daa mel ni de. Hmm? daa mel ni ñeme moo ko nekkoon. Hmm? wala booy waa Kër Masar ñoo la tiital fi mu toll ci combat bi. waa Kër Masar dañuy bëgge. Mhm. barki Serigne Touba Mbacké. Mhm. waa Kër Masar dañuy bëgge Alpha 2 bu baax a baax a baax. Mhm. Tibales wax ak loo ko la di set. non li ko naral maanaam mu waaj ak ànd ay mbokkam ka ni samay mbokk. waaw loolu kese la. ñaata kaaw la am ak yow ñaata kaaw nga am. ñu ma bëri maa ngi si 3 kaaw de. Double Less mu ngi si 4 xam 5. waaw na waajal moom. waaw. Hmm. Eh, est ce que mën nañ xaar bés boobu kaaw seen combat yi ñaar. waaw bu ko indee. Hmm. waaw. Hmm. bu indee xeex xeex de bu indee bëre bëre. waaw. dama dama dégg nga wax benn wax nag eh, mu xaw a def polémique quoi nga ne booy de mën nañ lépp waaye bu arbitre sifflé maanaam comme guy ngay doon ci ñoom. waaw mooy li ma wax rek man la balaa ñu xam dëgg. ñu jox ma booy ñuy coow. booy ñu coow doo bàyyi ba génne si Tip-less ba pare. waaw déggoo li ma la xanaa dama la ko dama la koy nga dégg loolu. Mm-hmm. gars yi balaa ñu xam dëgg dëgg xam alfa dëgg mm-hmm. ñu jox ma maanaam booy ñuy coow. Mm-hmm. a feeñal seen cuune. te incha allah bu neexee suñu borom la di seet lay feeñ. Eh, ngay bëri ngóor boo xam ne moo la ëpp expérience moo la jiit eh, loolu indi gàllankoor si sa combat moom. non non mënul indi gàllankoor. gàllankoor non non loolu mënul indi dañ nekk ay mbër yoo xamante maanaam ñoo ko jiitu si làmb kan ñoom bu ñu amee ñu mel ñoom ñoom ñuy conseil kan defe naa foofu tiit amu fa ragal amu fa. Mm-hmm. est-ce que ëpp la doole adversaire bi. non doole déedéet man moom jaab dama jaabaan ne ku may bëreel rek maanaam sa doole lay xaar. Mm. waaw mais xam ko bu baax. loolu si ma ne non xaw ma ko nag. Mm-hmm. xamante nañ ñii si adversaire. Mm-hmm. waaw mas mas ma seetaan combat am. Mm. Mm. xamoo lim ma ne ak lim tëli. non non xaw ma ko de. ba dëgg yàlla rek. dëgg rek xaw ma ko de. li may liggéey laa xam. nga ngay ngay ngay bëri combat boo sa carrière nag muy grand combat. et ñu tëggal ko fi nga xam moom mooy si dëkk ñi ko tëgg nag nekk ay jigéen ñoo xam ne naa ko li ñu am bu leen neexoon dañ koy def feneen. Mhm. et luñ mën a xaar lan la Alpha 2 mën a def pour satisfaire leen ci bés boobu. waaw ñooñu si ñoom laa waroon tàmbalee sax parce que dama leen di sant di leen gërëm di wax ne loolu yombul ñoom lu mu leen jaral bés bi ñoom dinañ ko jaral fukk pour ñoom ñu kontaan rek. si wàllu mobiliser lépp mm-hmm. nañ ko xaar incha allah bu neexee suñu borom buñ jegee tëngee ñëppay jóg du mm-hmm. tëngee rek a ñuy topp de mm-hmm. ñun ñëpp ñuy béggee Diaspora bi barki Serigne Touba Mbacké te la disat lay feeñ bu neexee suñu borom di profité tamit di nuyu waa sama booy Kaawmaan yëpp waa Espagne maa leen di dina dinañ wax combat bi seen combat la booy ñoo ko jëlal seen boobu de ñoom ñoo ko wax sànq booy ñoo ko wax sànq daal en tout cas loolu laa mën a wax léegi bu la neexee nga tàggatoo di woowaat ñëpp tamit ci combat di woowaat waa Kayaar di woowaat Ndar tamit am nga di woo ñëpp mooy loolu. comme dab tamit mooy loolu. di wax Alimar ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax moom di taay du xaddi heure bu ñu ko fëggee moom day ibbeeku barki Serigne Touba. voilà waa grand Paade kooku sunu deret la. Hmm. kooku maanaam buñ ko oowee sax moom tax na ba pare. Hmm. voilà moom xaaruñu koy woo. kooku ci biir la bokk. Mhm. di ko ñaanal jaamu rek. léegi loo tëjee pour Tip-less. kooku li ma la wax bariwul na ñëw tënkee ñu dalal ka la dese incha allah suñu borom suturaañ ma ñu ndam ci kawam. jërëjëf mhm. kontaan naa mhm. rapport ak question bi nga posé nag. vraiment ñu ngi ci ñu ngi ci démarche yi. ndax euh, ginnaaw bi ñu euh, amee yéene taxawal combat bu mag bi véritablement lépp loo xam ne démarche administrative la. maanaam lépp loo xam ne jëm na ci kayit euh, ñu ngi ciy taxaw euh, yàggul dara rek euh, déposé nañu li nga xam ne moom moo di demande de mise à disposition bu stade Ngalandou Diouf di am yaakaar ne le maire di Oumar Cissé Euh, dinañu ko dinañu ko nangul maanaam euh, jox ñu li nga xam ne moom moo di stade bi ngir ñu mën fa taxawal li nga xam ne moom moo di combat bi ndax ñun ñëpp xam nañu ne làmb dafa am ay réalité hmm. déjà pour nga régulariser combat bi au niveau du CNG hmm. il va falloir que nga am li nga xam ne moom moo di stade bi maanaam lieu bi disponible hmm. te diggante régularisation li nga xam ne moom moo di combat bi 15 jours la war a toll. donc ci 15 jours yooyu maanaam ak lu ko romb sax war na fekk ñu am li nga xam ne moom mooy déjà suñu suñu suñu euh, autorisation. ngir mën a tëggee ci ci ci ci stade Ngalandou di am yaakaar ne nag euh, du jafe si ñun. ndax comme ni ñu ko waxee rek. Euh, ñii ay jigéen lañu am yéene ci Tëngéej. te yaakaar naa ne le maire également nekk mm. le premier magistrat de la ville mm. moom it yéene bi mu am moom mooy jàppale ay ndawam mm. yéene bi mu am moom mooy tëngee jëm kanam donc ñii bu ñu ñëwee fekk ci loolu yaakaar naa ne comme niñ koy waxee rek euh, ku bëgg fi mu fanaan ak ki bëgg ki ko wéttali euh, tëjal bunt bi du leen boole donc ñu ngi ko ci woo bu baax a baax a baax ngir que mu ñëw euh, jàppale ñu véritablement ci loolu comme ñii suñuy ay yaay lañ est-ce que mën leen woon ñaan ñu estade bi ñu jox leen ko ci gratuite waaw ba tey jigéen lañu waaw waaw ba tey ba tey ba tey loolu tamit wax dëgg yàlla yaakaar naa comme ni ma ko waxee rek tamay njël benn wax warul jafe ndax euh, lépp te ngiej la te te ngéej yaakaar naa ne euh, mën nañ ñoo mën nañ ñoo waxal lu ne waaye bëgg nañ suñu mbokk mën nañ ñoo waxal lu ne waaye mën nañ ñoo jàppalante suñu biir yaakaar naa ne loolu mu ngi fi te également le maire Oumar Cissé il est il est il est il est il est une personne ouverte donc ñii bu ñu ko seetee waxtaan ak moom yaakaar naa loolu nga wax noonu dina war a mën a nekk. Mhm. waaw dina war a mën a nekk donc ñu ngi ko ciy woo également di woo toutes les autorités. képp koo xam ne rek loo mën ci làmb ji que ça moom mooy ci sécurité que ça soit moom mooy ci disposition stade bi waaye que ça soit également moom mooy ci jàppal. Mhm. ndax tamit ñii dañu soxla jàppal. Mhm. jàppal boo xam ne nii dina leen mën a permettre. comme ni ko euh, suñu yaay Ayta waxee bu ñu jógee ci combat bii di la 17 incha allah rabbi ñu mën a songaat yeneen i combat yoo xam ne euh, dafay gën a yaatu waaye également dafay gën a riche en li nga xam ne moom di culture sénégalaise. kon kon mën nañ am yaakaar ne 17 février. mooy làmb dina am fii stade bi. waaw mën nañ ci am yaakaar mën nañu am yaakaar ne la 17 incha allah rabbi si njàppalu yàlla. ak euh, kattanam également si li nga xam ne moom moo di jàppalu le maire Oumar Cissé. Mm-hmm. làmba ji dina dina am te ñu wax tëngee ci yëpp wax Sénégal yëpp. ñu mën cee xaar lu baree baree baree bari mhm. ndax ñii ñëwuñu rek ngir ngir ngir ngir dugg ci làmb dañu ñëw nekk ay jigéen wax nañ ko léegi seen i biir wax mhm. mu nekk aspect bu am solo mhm. maanaam jëm ci euh, féminisation de la lute ndax amoon na fi mais yàlla dogal na ne euh, gisatuñu ko donc ñoom bu ñu ñëwee en plus lay doon mm-hmm. dañuy fekki ay góor ci biir làmb ji mm-hmm. kon war nañu mën a am différence ñoom bu ñu mm-hmm. indaale différence boobu nag ci côté image dina ñëw ci côté événementiel dina ñëw ci côté culture dina ñëw waaye également ci côté ambiance dina ñëw donc bu ñu bëggee gis de la vraie lutte et de la vraie lutte sénégalaise bi nga xam dañ koy boole suñuy culture donc incha allah rabbi mën nañu ko xaar ak soxna yi jërëjëf mbokk yi gannaaw bi nga xam ne ni maam ñaaw sànn ci ay kàddu comme ni ñu ko waxee léegi rek et loolu mooy confirmer ni combat bi taxaw na mm-hmm. ndax maam ñaaw jël nay kàddu waaye ki nga xam ne moom mooy la grand ménagère muy muy sama maam nag di sama xarit mm-hmm. di Matar Ndiaye information bu ma yëg ci làmb rek moom moom ma koy wax maa maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax di la sa wàccu waay waaw Badou mm-hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay di nuyu mbokku internet yi di nuyu waa Tëngéej gépp nuyu sama frère maam ñaaw siis nga xam ne ñun dañoo yàgg moom sama frère la sama lépp la. ñu bokk liggéey bi macha allah mu nekk xale bu yaru. bu neex a àndal xale bu joxe cër ko. tey toujours du gaaw a réer ndax moom day laajte. lépp lu ko jeexal wala luy kii dina ma woo laaj ma ma wax ko ci li ma xam. ak sama xalaat te koo xam ne daf ma doyloo trop. di nuyu nag waa Rio Events comme ni ko defee muy sunu jigéen yu ñaawul ñi. fas teg tëgg combat bu neex muy combat tubeless. Euh, l'autre là Alpha war ko def fii ci Tëngéej. mu nekk làmb ju neex a neex a neex a neex. Mm-hmm. yaa ko jëlloo Alpha 2. waaw bien sûr maa ko loo te même avant muy bëri combat bi mu doon bëri arène doon na bi am na yeneen promoteur yu doon wutloo Alpha 2 adversaire du ko doon wuta adversaire mm-hmm. proposé woon leen nañ ko jox Tubeless. Mm-hmm. loolu commencé woon naa ko démarché far yàlla dogal ma am beneen combat bu a jege arène national ma ne maam ñaaw loolu yàqul mën nañ jël ñaari combat yëpp. mais xam ngeen Alfouda bu baax ndaanaan la. xam bien sûr xam naa ko de ndax xam ngi ma ko xam dafa weesuwul keroog bi mu bëri arena. Mhm. arena national combat bi mujj. Mhm. xëy na manager yi ñu bari miinuñu ko ndax man xam naa ko setaan naa ko fii seetaan naa ko mbaaw seetaan naa ko arena national. Mhm. Euh, bi ñu taxawee combat bi gis gars yi gis nañu adversaire bi da ko sut. am na ñu doon xalaat sax naan kii booy bi mën na mën na kaawte booy wala ma leen noo kii booy bee ko mën fuuf moo ko dàq bëri moo ko dàq xeex ndax xam naa ko. mais fi ñu taxaw de ma leen booy ndaanaan la da ngeen koo xamul nag mais ndaanaan na nga nii. mais bi mu dóoree booy bi mu daanu. gars yi ñëpp dañu maa jox loxo rawatina Maxime Bargane daanaka man noonu li nga xam ne lu koy dëggal. Mm-hmm. booy bi bu rëy bi mu am jubilé wul sax. Mm-hmm. mais yëgul sax ni daan na. Mm-hmm. yëkkati loxo dafa kii door mu daanu arbitre yëkkati loxo mu dox ndànk. yëgalu ko boppam sax mu xam ni kon kii li muy def du loo xam ne jàppul ni da koo tàndu xam na ni mën na lópp loolu quoi. Max Mbargane ma lii mooy confirmé ni kii champion la li nga doon wax ci moom am na. Mm-hmm. lu tax maam eh, Matar Ndiaye xam na ne Alpha 2 ndaanaan la. super ndaanaan la ba pare mu koy dugal ci Tibles. waaw li tax ma dugal ko ci Tibles nag dama xam Tibles bu baax. ba koy xam mi ngi nekk Grand Médine. Mm-hmm. ba ñuy muy écrit Sane Ndiambour ñoom ak ñoom dongaloo. Mm-hmm. ba dama yàgg moom nag. wi def école de lutte du Wales ba ni muy ñëw Kër Masar mbooloo. mag gis ay combat am yëpp jàmbaar la. mën a bëri ta nag xëy na sax mi ngi mën naa ni mi ngi doog a bëri sax koo xam ni xëy na mën nañu tublee su ko ëpp a ñoo tolloo. Mhm. ñi mu doon bëril ñëpp ba ci doomu mi nam. Mhm. bii passé boo fàttali ko combat ak doomu doomu mi nam. Mhm. ñaar yoon la ko daan sax. jël bu leer la ko daan ñu continuer bëriwaat mu daanaat ko jël bu gën a rëy bu rëy rëy sax. combat mi passé gis nga ko moom Africa Cup dañoo xeex ba gis nga kanamam gi ñaw ñaw yaa ngi. xeex bu méttee méttee méttee méttee te yàgg. bañ dem bi ñu demee bi demee Ardo pour man bi mu ñëwee day wor juyoo ak moom ci bëri mu ñëw ñu dëggalaat xeex bu métti mu kaawte adversaire am. Mm-hmm. ndaanaan la maanaam dafa mën a bëre mën a xeex ba pare dafa ñeme. Mm-hmm. te Alpha tamit dafa ñeme. Mm-hmm. moo tax combat boobu moom ak lu mën a xew. moom Ardo dina liggéey loolu moom leer na moom. Ah. <laughs> non loolu mënut a ñàkk. Uh-huh. léegi ban sens la Tip Less am ci Alpha ba pare di ko fekk si dëkkam. non non loolu moom duñ ci wax xam nga suñu stratégie moom doo dem ci euh, xare di wax yan ngànnaay nga yóbbu wala ban stratégie mm-hmm. loolu sunu plan la daañ ci liggéey xam nañ ko mm-hmm. quant à fekk si bii nag dañuy wax rek waa Tëngéej mm-hmm. ñu lu ndax am na des fois yuy am du encouragé yenn booy yu ñëw fii ndax am na booy yoo xam boo leen bëggee jox combat Tëngéej sax dañuy xaw a ragal te fekk du ñëpp côté violence comme sama mbër Petit Baye Fall xam ne champion la vraiment ñu ngi koy nuyu di ko gën a wax moom surtout ay supporter am ñu gën a defaraat seen ndax moom même Dakar neex fa wutal combat ndax day jàmbaar tollul ne mbëri mais day jàmbaar mën a bëre mën a xeex booy bar saaruñ ci ay mbiram kon su gars yi amee ñoom konaate chance di ko décrocher ay combat te ngeej ñu dalal ay mbër na nañuy góorgóorlu ba di rafetal ndax am na yoo xam ne bu ci amee rek non seulement moom mais dafa am ñeneen ñoo xam ne sax boo leen bëggee jox mbër tëngeej daanoo noonu lambi tëngeej lii wala laa fekk du ñëpp ñoo demee noonu ba am na ci benn booy bu ci war bu war a bëree dimanche dumbul moo war a bëri papa yaa a ndaw booy bu gàtt boobu nekk lébu gi bi mu ñëwee foofu dañ man du ma bëri mbaru tëngeej hmm. ndax combat fii la fi amoon dañoo def lii gaañ ñu def lii def ma leen non ñëpp bokkuñu hmm. kooku sama mbër moo doon bëree xëy na moom ginnaaw moo tàng loolu day am hmm. Dakar am na ñoo xam ñu bëri ñu ñi duñu am jàmm ñun ñëpp am nañ ko donc li muy amee Dakar moom lay amee fii mais wax naa ko konaate wax ko maam ñaaw toujours ñu wax ko même seen président écurie ñu wax nañ ko ko ne leen nañu gën a góorgóorlu ngir booy di gën a sawar ñëw fii ndax làmb tëngéej ñoom ñoo ci bénéficié wu mhm. ku tëgg làmb tëngéej il faut nga jël mbëri yi tëngéej wutalee adversaire feneen mhm. ndax loolu nga def bu dee làmb Dakar garaaw mën ngaa tëgg làmb Dakar doo mhm. mais fii ku ko tëgg mm, il faut nga jël mbëri tëngéej mbëri kër Mbay Fall mbëri kër ma saar ndax ñoo gën a jege fii moo tax ñoom it nañuy góorgóorlu di dalal nit ñi ci respect ak sportif ñu xam ne sport la rek foo la agréé après mu jeex. mais bu fekkee dañ koy dañuy def safaan bi ba booy dootuñu sawar a ñëw fii loolu ñoom ñoo ci perte. loolu ñoom la yàqul quoi ñoom la yàqul. jërëjëf loolu am na solo message boobu côté violence bi. Mm-hmm. kon na a góorgóorlu. Mm-hmm. Mm-hmm. ko waxee léegi rek làmbu tëngëj lañ bëgg a defar. bu ñu ko bëggee defar nag ñoom. ndax moom ñaar moo ci nekk wala ñette moo ci nekk daan la ak xam ne sport la. kontaan naa bu baax ci yow maam. mais lu ñu mën a xaar le 17 waaw li ñu mën a xaar daal mooy ñun daañu góorgóorlu. Hmm. muy sama man muy maam ñaaw. Hmm. lépp lu ñu yor ci xale yi nga xam ne ñoo gën a jege fii te gën a baax. Hmm. daañu ci xaar suñu tànk tubay incha allah fexe ba di 17 ñu dugg leen ci làmb ji. te liñ koy commencé mooy ci làmb suba ji ak ginnaaw suba. dinañ xool gone yi fi gën a mobiliser gën a jaay ticket yi versé normal ñu jël leen boole man ma jël leen boole gi maam ñaaw yor ci lim gën a wóolu lim gën a yaakaar. ñu defar parce que ñu tamit suñu jigéen lañ. suñu jëlee seen i doole ak seen i ne dañoo bëgg ñëw ci làmb war nañ ñëw xar suñu tànk tubéy def loo xam ne si bu soobee yàlla bu ëllëgee daan jigéen gën a sawar mm-hmm. ba tax bu ëllëgee sax ñu ñemee dem arène nationale ak yeneen ak yeneen mm-hmm. te loolu bu soobee yàlla danañ nañ ci was man ak maam ñaaw daañu ci def ci li ñu mën mm-hmm. li ci des nag yàlla moo mën yàlla nañu yàlla jàppale amiin mottali suñu yeneen daan ci dem ak yéene ak xol incha allahu rabbi te comme ni ma ko waxee nii ku mel ne Catalina suñu jigéen ku mel ne Kanji borom atelier kooku sama frère la sama lépp la Kanji maanaam bu ngeen doon tëgg làmb Tamba sax même bu fa takkul benn bâche bu mu nekk ñi sama jigéen la jàppale leen loolu la par force te loolu bu soobee yàlla damay ànd ak yéen sax tànk ak tànk mbagg bu soobee yàlla loolu moom du problème dinaa ànd man ak moom ak yéen ñi ak maam ñu dem ba këram man ko ñi sama jigéen lañ dañuy tëgg lamb dat sànkam jàppale leen su ko defee ragal naan sax booba moom automatiquement <laughs> bala ñu àgg ci lamb sa jaatu sax moo def ñu war moo amul problème maa leen ko promettre te naa ko def jërëjëf jërëjëf kontaan naa ci hmm. lay nuyu maa ngi lay siyaare di la di la di la kontaane bu baax a baax waaw di wax asalaamaaleykum ginnaaw ma leen nuyoo yéen ñëpp di la tamit di la ziar la jox sa waajuwaay bu baax a baax di la félicité nag ci ndam lu rëy li nga jógee macha allah yal na yàlla xeeb dolli waaye ci bés bi nga jëm waaw di wax bis bi ma jëm damay jàpp comme yeneen bisir rek parce que du tey laa koy doog a def hmm. boo yàlla defee nga bëre bëreeti boo amaatee combat da nga ciy gën a yeewu di ci gën a pare hmm. di waaj nag comme niñ daan waajee suñuy combat hmm. tàppituñ ci dara waaw di wax nii comme niñ daan neewoo ñëwee rek la ñuy ñëwee comme suñu adversaire la rek comme yeneen adversaire yi romb Cheikh nag dañ koy fekk ci dëkkam te ñu fee dëkk parce que boo jugee Kër Masaar bu Tëngéej ngay dugg boo duggee yow génnee Tëngéej Kër Masaar ngay dugg. kon ëpp la fi dara. kon ñoo ko bokk. Mhm. dañuy kaf dañuy ree bu jeexee dañuy àndaat. yaakaar naa ni premier grand combat sa carrière. waaw di ko sante yàlla bu baax nag tey ñaan mu yàlla mu bañ fee yam mu dolli ñu ay yeneen grand combat. ba ñu mhm. egg fi mbëri mag yi yegg. Mhm. waaw di wax nag ñu ngi koy waaj nag parce que premier grand combat daanaka bunt buy ubbeeku la. te saa boo ubbee buntu da nga war a ñaan dugg ci biir néeg bi jàll. bëgguma ubbi ba pare tëj. ma bëgg ubbi jàll xuus dugg ci biir kon li mu ko yore nag mooy ma jëm si fulla ak fayda ak jom. Mhm. ak wane lu tax bu ëllëgee ñu laat la grand combat. Mhm. mooy wane ànd ak public bu am solo. Mhm. ñu bañ a def benn violence ñu ànd comme ni ñu ko daan àndee. ñëw yëngal stade bi yàlla defal ñu ndam ci suuf. ñu da ngay da ngay da ngay faj sa mer ndax Alfoury dafa dugg Kër Massar trois fois. waaw def na ni dugg na Kër Massar trois fois bi muy daan suñuy ñaari mbër kenn ci daan ko. tey dafa war a ñëw dugg dañuy mag ci niil bu soobee suñu borom. te ñi ma ko daan wax ñëpp yàlla suturaal na noonu la demee. dañu mujj c'est-à-dire da ngay daan alpha 2. incha allahu rabbi. alpha 2 tàng na de. waaw mais garaawul. te léegi fi nga fi nga toog la toogoon léegi. ne ma ki ne ma ki may bëril bu mu def dara. na ma xaar rek ndax maa gën a féete xale maa bu doole. moo li ma daan wax ay moroomam. Mhm. bu soobee yàlla dañ maa yónni yàkkamti ma. Mhm. maay song maay xeex te incha allahu rabbi maay daan. am na trois kaw. garaawul bu kombaam yépp nekk kaawoo garaawul. làmb tey man ngaa pare pour ñëw xeex fekk bëre moo am tey mhm. nga ñëw pour bëre tey xeex moo am mhm. waaw ni mu ko war a daane daal damay ñaan yàlla yàlla nekk loo xamante ni na gaaw te yomb rek nee na ma képp doole ki dàq bëri mhm. ki dàq xeex uh-huh. yàlla na ko yàlla may ndam kon gëm naa ne man am naa ndam da lool déggoo ma la wax neex na yàlla suñu borom ki dàq bëre ki doole ki gën a pare yàlla na ko yàlla may ndam nee na ma xam na la bu baax waaw ni ma xamee rek laa ko xamee làmb moom loo xam ci moom ca daan ko làmb combat bi mu bi mu jee bëre ki mu bëre maa ko yóbbu. Mhm. mu daan ko. waaw noo ko dundee loolu. mais am naqar rek. Mhm. léegi nag mu ñëw pour facc ma naqar bi. noo koy fajee. waaw mais yaa ñaan yàlla ndam ci kawam. mënu ko duma. waaw ko li ma wax làmb ju lu mu laaj ne dinañ ko def bu laajee duma ñu duma bu laajee daan duma. daan ñu duma comme da ngaa mer kañ am nga chance ñu pour faj sa mer le 17 février ci Tëngéej. waaw incha la rabi le 17 février ñëw comme ni ma daan ñëwee. comme combat bi passé ni ma ko waajee ñëw noonu laay waajaatee bii ñëw incha allahu rabi te hmm. ñaan yàlla nag ndam te incha allahu rabi dinañ ko am xam nga importance bi boo ko daanee xam nga fi mu la yóbbu ci làmb moo tax may la incha allahu rabi dinañ am ndam ndax xam naa fi mu ma jëmee hmm. xam nga làmb nag lii dafa am benn phénomène bu ci nekk mooy boo fi boo fi ëppee ay combat te amu mobilisation doo dem fenn ci làmb ndax mën nañ xaar tibles indi mobilisation bu doy waar incha allahu rabi bawal ma duggee bawal dama leen limal ñett dëkk yoo xamante nii benn bu ne oto yu dafay jugee di ñëw. Mhm. ngaraaf oto dafay jugee di ñëw. Cenaba oto dafay jugee di ñëw Kayra oto dafay juge di ñëw waxuma la ak li ma dëkk fii. kon waa Tëngéej ñoom bu ñu yeexee. non man liñ man kay damaa bëgg ñu jo li jox ma lépp ci stade bi ñu jox ma ko. ah lépp si stade bi. ñu ne ah? Tip moo ko moom. Mhm. wallaahi laazim loolu laa bëgg ndax dama koo bëgg a duy. Mhm. waaw parce que maa ngi ciy woon ak président Moussa Gueye parce que am na lu ma dig li ma dig yëpp nee naa ko jëndeel ma ko ay boloogu ticket mu ñëw. Mhm. soxlaawu ma dara man na ma jëndal ticket yi rek. Mhm. li des bu soobee yàlla suñu borom dinañ ko gérer. Mhm. comme niñ ma daan di waajalee rek noonu lañ may waajalaatee te bii nag day yokk parce que lii grand combat lañ wax. maa ko gën a bëgg fuuf. Hmm? mu ngi lay si daan koy wax. Alpha 2 grand combat bii nga jël sama diggante ak maa la ko gën a bëgg fuuf te incha allahu rabbi bu wis baa di nga xam ne maa la ko gën a bëgg. mu ngi lay si daan kañ koy wax laa moom rek. loolu laa ko wax di ko leeral ma ni. Hmm. la le 17 février dina xam ne maa ko ko gën a bëgg côté mobilisation côté préparer làmb ji ba ci biir géew dina xam ne maa ko gën a bëgg. nee na moo la man de. waaw li am na si ay làmb rek yàgg naa dégg ñu ne moo man. Mhm. loolu moom du gan ci man. mu ne ah. ki may bëreel ki may bëreel paala bi muy bëre boobu xayalaa. wallaahi laazim déggoo li ma la wax nii ma toogee ak Matar nii noonu la ma toogee beneen bër bi ma bëreel. mu mhm. ne ma paa bu boobaa bul def dara bàyyil ma ñëw daan la ma ne ko bu soobee suñu borom nii ma wax rek dañ maa yónni yàkkamte mhm. te maay maay xeex maay daan incha allahu rabbi. ah waaw Malika ma yónni de. nee na Alpha nee na boo bëri woon léegi léegi mu daal la. bu ko neexee ma tegal ko li ma yor sama téléphone bu mu teg li ma yor sama poche bu mu teg dara. Mhm. ma daan ko pare dem ceeb mhm. naan ma dama koy daan pare dem noosi ko si ceeb gi. Eh. bu mu teg dara. Mm. invité naa ko bu soobee yàlla suñu borom na ñëw. Mm-hmm. si ceeb gi bu neexee yàlla ñu àndaat dem. bu le 17 février kañ la kañ gi. incha allahu rabbi le 21 dimanche. Mm-hmm. mais nag dama koy wax bu baax na ko na pare lu mu pare doyul. Mhm. lu mu pare doyul. Mhm. li ñu def seen bopp bi ak li am du benn de. ñoom li ñu def seen bopp. li ñu def seen bopp ak li am du benn. ñoom li ñu def seen bopp. yaa ko wax léegi ne nañ mag la ñuy bëreel. Mhm. wallaahi nañ pare ne paa la ñuy bëreel garaawul. mais bu bis baa bu ñu bëree pare la doo ko comprendre ni ndeke xale lañ doon bëreel. waaw yàgg naa dégg nag. tiblees paa la tiblees paa la. garaawul ba ñu ma yàlla. mais ji ak samay morom rek. bu soobee yàlla suñu borom. nee ne na ma làmb ji li nga ci am moom xam na ko. Mm-hmm. li nga nee li nga yaakaar ci làmb ji moom xam na ko. Mm. mu ngi réer nag mooy li ma la wax rek ñoom li ñu yaakaar amul. wallahi ajim damaa am lu ma. yow dafa am loo yaakaar ci làmb ji. li sama papa raté ci làmb yëpp dama koy jël bu neexee yàlla suñu borom. yéen moo nekkoon sa papa. li sama papa raté ci làmb lépp. Mm-hmm. dinaa ko jël bu làmb jaa bu ma toogee plateau dinaa la wax kan mooy sama papa. kon yow ngémbal da nga kaa fekk si kër gi. damaa juddu fekk ko fi. Alpha am na problème. suñ kër ñëpp jigéen ñi sax dañuy bëri waxuma laa góor ñi. Alpha de am nga problème. suñ kër jigéen ñi. kon sa jigéen ñi tëggalaa dañuy bëre warutuma ñëw ay jigéen tëggal ma. Mhm. bakkan bi laa ciy teg pour am ndam te mhm. incha allahu rabi dinaa ko am. waaw foofu foofu tëjee mooy sa combat ay jigéen ñoo ko tëgg. waaw ñoo xam ne nii dañuy dañuy góorgóorlu rek ndax kenn nekku seen ginnaaw lu ñu mën a xaar. waaw di leen ñaanal nag ba pare. Mhm. fi ñuy dégg promoteurs yi mag yi. wallaahi la nga dama bëgg bu combat bi jugee bu combat bi jàllee di leen ba ñuy tëgg ay grand combat dañuy mbëri mag yi ñuy wax ñu dem ba ñu koy tëggal parce que ñun dañuy ñaan yàlla doon ay mbëri mag ñu dem ba ñuy tëggal comme bis yu mag yooyu ñoom jigéen ñi parce que lii yombul nga jël seen xaalis di ko financé ci xale yi pour rien que rek jàppale xale yi parce que léegi gis nga violence yu daa bëri daanaka lu xew rek ñu ne mbëri mbëri léegi nag boo yàlla suturaalee nga leen tëggal lu bari dina deñ parce que bu la leneen da nga xëy yeew war a entraîné ji di nga tal leneen lu leeru kon dama leen ni ñaanal rek yàlla seen ànd gën a dëgër yàlla suturaal leen ba lépp luñ bëgg seen carrière yàlla defal leen ko ci maa ngi leen koy ñaanal mhm. du combat moo tax de mhm. mais liñ def moo rëy mhm. parce que léegi ànd yombul kon bu ñu àndee rek leen di ñaanal yàlla gën leen a jubóole gën dëgëral seen taxawaay ba liñ bëgg seen carrière yàlla defalal leen ko yàlla na leen ko yàlla mottali jërëjëf kàddu yi am na yàlla yàlla mottali lépp bu la neexee nga tàggatoo waaw li may gën a tàggoo man damay sant kii sama maam la waaw maamu xale yi la mhm. papaay xale yi la parce que moom mhm. am na fu mu bëgg bu làmb mhm. ba tax na mu ngi jàppale mbëri ndaw yi barki Mouhamed man bokk man de xam naa li ma jaax mooy xam naa li ma jaaxal ci làmb mooy ñi réeroo ménagère bokkuñ ci de man bokk li ma te chaque jour seen mbër ñooy bëri waaye réew ñu ma loolu ma a jaaxal xam xaw la mooy seen secret nag foo la làmb foo la ñoom xam nañ làmb foo la te wallaahi laa ji mbër mooy bëri damay xam ne lii foo la bu jeexee damay lijjanti sa numéro woo téléphone bu ma la mënee seet ci ma seet ci la mais hmm. grand bi nii kii papa sax laa koy wax. barki yàlla parce que am na ñoo xam ne xamuñu ko. Hmm. léeg ñu seedal nit ko xamuñu ko ko quoi. Hmm. barki Mouhamed bi ma dalee bi ma nee mbër laa sama licence bi ma ko joxee ba léegi musuma koo jël di ko jox keneen. bu ma tëggalu làmb man duma ma bëre. du ma sax wuti combat man. entraîné laa def ba mu ne ma am nga combat. bu ko gars yi xamoon li ma bëgg a wax ci Matar sax mënu ma ko wax ci micro bi. ndeysaan wallaahi la azim dama koy ñaanal rek. Mhm. moom it li nekk ci ay mébétam lépp yàlla àggalil ko ko. di wax nag combat bi lépp lu leen ci xaar ci mobilisation dina am. Mhm. bu soobee yàlla suñu borom. parce que dañ maa yónnee yaakam di ma fi mu toll nii rek bi may ñëw nii nii nii nii ñi dama leen bett ñëw rek ñu bari dañoo pare woon pour ñëw. Mhm. parce que man xaw ma doon ban heure la. mais gis nga ñëpp la ñoo mujj mobiliser pour ñëw may leen dañ ñoo may ñaari nit. dama mujj dem sama garage di woo sama waa garage ñaar rek laa fa àndal sax sama waa garage laa àndal. Mhm. ak sama ménagère ma daal jaay. xam xam naa ne daal buy ñëw di set. ama moo koy indi doomu daangu moo koy indi gàmmu gay moo koy indi Youssou Ndour moo koy indi yow indi. incha allahu rabi waa Kër Massar ñoo may indi. Mhm. mbër yëpp waa Kër Massar ñoo may indi. maa fa gën a nekk xale. ay mag rek ñoo fa nekk yu bëri pour ñu ma jiitu si làmb. Mhm. luñ loolu laay def. maa leen di xaar comme ni ma leen daan xaar naa la bi du sama premier combat. Mhm. dama mel damay doog doog du goo xam ti loo xam ne demal jël lañ ma mhm. kon dama ci ànd ak mobilisation bu doy waar. pare comme ni ñu daan paree làmb yi barki Mouhamed maa ko gën a bëgg fuuf maa ko gën a bëgg fuuf parce que damaa xam li ma ciy xaar. wax la moom. Alpha 2 bi maa la ko gën a bëgg fuuf te bu soobee yàlla suñ borom bu nu àggee ba bëree pare ngay doog a xam ne maa la ko gën a bëgg li ma la wax rek. maay song maay xeex maay